loolu mu nga match boo xam ne daanaka bu métti la woon say gone première mi-temps bi ñoo la gone kees yi wane ak caay-caay boo xam ne dañu koo dencoon waaw xam nga eh, xam nga moo di demee quoi yeneen match boo xamante ni ci match bu bu xaw a compliqué la bu am ñaari xar kanam voilà bu njëkk bi ñu moomoon ko voilà waroon eh, vraiment eh, pare ak ñoom voilà ñu am ay bare bari bari bari waaw loolu pratiquement li koy firndeel mooy coono quoi parce que ñuy expliqué nii parce que ay cinq heures du matin lañ ci egg moo waraloon sax tey ñu ñëw terrain voilà loolu daal man mi sama bopp amoon amoon yaakaar ne xale yi dinañ am fàq na am premier mi-temps mais par contre naa quand nit yi le niveau de l'équipe là allait monter voilà jàngat match bi daal gis nañ ne pratiquement le contraire loolu moo am en premier mi-temps dañu dominer match bi domination bu métti métti mais par manque de lucidité calme sérénité moom moo tax bu dugal ñu bi occasion yooyu noonu yëpp quoi maintenant loolu dab ñu en début de première partie ñu ñëwaat deuxième mi-temps bi euh, waa Thiès FC voilà ñu revenir au sport voilà ñu joué tempo 120 euh, euh, minutes yi jeex voilà ku nekk amoon na ay autoroutes euh, foofu moo la différence bon yàlla def na séance euh, yàq victoire jàmbur mais dans le cours du match am naa yaakaar ne que ñun ñoo mu mel ni match bi nga xam ni jeex la ñu bari ñi ngi doon xalaat ni Tamba am na tàngaay bu tàng boo xam ne ma toll na tuuti tàngaay boobu waroon na fexe yéen ñi nga xam ne nekk ak gone Cees yi ngeen am benn euh, boo xam ne yéen a koy moom ndax tàngaay bi naa am yeneen xam nga tàngaay yi yi dafa nekk loo xamante ni c'est aléatoire kenn du ko ñëme kenn du ñëme tàngaay kenn Tamba la dëkk foofu laa yeewoo mais tàngoor bu ma gis fii nii mooy waat si sama ak tàngoor bu ma gis fii tey mosuma ko gis Tamba donc moo tax sama xale yi sax booy xool dañuy jël ndox di ko sotti seen biir daal donc euh, cela veut dire juste que Tamba bi ñuy wax bi ak sédage bi daal maa ngi bi ma ne ko lii man mosuma kaa gis je n'ai jamais vécu euh, une canicule euh, pareille quoi moo tax vraiment tàngaay boobu noonu ñuy wax. bon tey moom xam nga yeneen bés mais tey Thiès la gën a métti. mu mel ni say ci li ñu jàpp mooy. am naa benn encouragement boo xam ne dañ la koy encouragé ak ñoom ndax ñoom am nañ benn expérience boo xam ne gone yi ku leen jàppale boo xam ne dina yéeme loolu xam nga xam nga am nga loolu nag mooy suñu problème waaw vraiment ñàkk soutien dëgg dëgg dëgg quoi ñu njiit yi fa nekk suñu kilifa yi euh, jàppale équipe bi sinon su dul loolu moom wax dëgg yàlla xale yi fa nekk ay xarañ lañ ak bii nii di football nii seen demi centre bi Tamba la dëkk sama xale la woon donc cela veut dire que am na ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ci nit ñi foofu noonu di football bon am nañu place yu joué au niveau problème bi mooy jàppale bi ci war moom moo amoon soit les conditions sont extrêmement difficiles mais bon ñoo ngi góorgóorlu ñoo ngi góorgóorlu jéem a xëcc équipe bi naaka naaka xëy na ko gën a génn ci kàmm ok coach ñu ngi lay remercier bu baax a baax di la encourager ci kanam jërëjëf jaajëf merci